asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen tey nag ñu ngi alxames jeudi maanaam 10 juin 2021 leen di nuy yéen ñëpp ñaanal leen jam te sàkku ko si yéen yéen ñi nga xam ne yéen ñuy suivre ci Equivox TV di topp li nga xam ne ni moom moo di JDA bi maanaam li tukkee ci yëglikaay li ñu def mooy bàyyi leen ngeen dem déglu li nga xam ne nii moom moo ñëw tey ci yëglikaay yi asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah jeudi 10 juin 2021 dañuy yokk yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu lamb tey xëtam mu njëkk la mu ca xëy fasal maanaam ñetti mbër yoo xam ne daal maanaam yëglikaay bi tey xëy na di leen dànkaafoo muy tafaatin bombar Bombardier ak Sa parce que nag yëglikaay ba la mu gis wala la mu jàpp mooy daal boo bëggee dégg-dëgg moom nee na leen seen combat yi ngeen jëm yow Tapha Tine yaag Boy Niang Bombardier yaag Balla Gaye Sa Thiès yaag Moussa Ndoye maanaam sunu làmb nee na leen su ngeen bëggee dégg-dëgg gañe dong moo leen ca jig bu ngeen ca amee leneen lu bokkut ak gañe moom bu keroogee moom maanaam du sedd ci yéen sunu làmb moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu wala boog di dànkaafu ñooñu moom Sa Thiès mooma nag combat ba nga xam a yëglikaay bi ne la le 26 juin bii nu jëm ca la nu war a bëri sunu lamb nag xëy na tey dalal ci Moustapha Guèye deuxième tigre de Fass ba mu nga xëy di wax ca combat ba la mu gis daal ne na soo bëggee dégg-dëgg moom daa gis Sa Thiès boo xam ne fi mu nekk ni moom ah màgg na waaye Moussa Ndoye daal kii di Tafa Gueye moom nee na da koo xaw a bet bet gam ko bet nag xam naa ne mooy daal ca nam ko gisee fi mu nekk ni ci wàllum liggéey ak taxawaay yëglikaay bi moo xëy tey dalal ka nga xam ne ni moom moo Moustapha Guèye mu xëy tey di wax loolu nga fa nga xam ne ni moom moo di ca sunu làmb keneen koo xam ne ni mu nga xëy ca sunu làmb dafa wax moom day dëkke muy caat bu booy bambara caat école booy bambara daal ka mu xëy di dëkk du kenn ku dul baabooy la mbëru di da Pikine ne na Gaston Mbengue daal na ma jox avance bu baabooy caat ne na ko boo ma koy jox ma di ko lekk te bu ma ko lekkee dinaa ko lijjanti ba mu xam ne lépp dëgg la ñeneen ñoo xam ne ni moom war nañoo lijjantente ci dimanche ji nu jëm muy diggante ka nga xam ne ni moom moo de France ca Gàmbi leket baara ca Gàmbi yëglikaay bi nag xëy na dalal mbër moo xam ne ni moom mooy roi des arènes wu Gàmbi ba di xoyantaan mu xëy tey di wax ca combat ba xoyantaan la moo gis nga na bu dee ci wàllum xeex la moom nee na kiiri di France moom xeex ba moo ko gën a arrangé waaye leket moom la ko arrangé dëgg dëgg dëgg xoyantaan ne na moo di jàppoo dal di bëre keneen koo xam ne ni moom wala ñeneen ñoo xam ne nii wala beneen dimanche boo xam ne nii ca la ñu jëm di même dimanche jii nu jëm rek ba tey Gambia bu amee lamb ak jamaïcain fii ci Ndakaaru tamit nar naa yëngutu lool ndax nag yëglikaay bi ne na maanaam weekend bii nu jëm itam weekend bu nara tar lay doon ndax bu dee dimanche jëla ci arène nationale ka nga xam ne moo di Assane Ndiaye moo fay tëgg diggante ka nga xam ne moo di booy Pouy ak ka nga xam ne ni moom moo di taqe ma nekk ca Lansar yemuñu maar muy euh, muy foo xam ne ni daal ren mooy nekk bés bu njëkk lamb dafa am ka fa jëm nag moo di Jibson production comme fa andi moom moo di bulldozer bu Kër Massar ak ka nga xam ne moom moo di gin bu yof mel ni kon daal weekend la boo xam ne ni daal bu nar a yëngutu lay doon ki nga xam ne ni moom ak yëngutoom xëy na tey wane ko wala boog am meram moom moo di booy kayre bàyyi jén kayre ak mbañik kayre booy kayre nag ka xëy mere du kenn ku dul Sitor Ndour jàpp na ne Sitor daal na muy arbitré ay erreur dong dong moo ca ne parce que jàpp na ne kera na mu arbitré doomam jadi mbañik Diouf Kayre diggante ak Jacob Balde booy Kayre rafetlu ko de parce que daa jàpp ne Sitor moom ay avertissement daal da koo jàppee ni koo xam ne daal da nga tem maanaam tiim sa bool saa yu la neexee rek dank sam dank dugal sa gémmiñ nee na avertissement warta demee noonu des ko war a teg ci yoon daa jàpp ne kon Sitor na mu arbitré combat ba jaarut ci aw yoon ba tax doomam ja nga xam ne moo doon bañu kayre am juróomi avertissement ñàkk combat ba booy kayre loolu naqari na ko lool moo tax tey daal mu xëy di jubbanti Sitor Ndour di ko wax mu xoolaat taxawaayam ak na muy arbitré yemut ca Sitor jàll na ba ca CNG ba nga xam ne moo yilif làmb ji booy kayre ne na daal lañ ci waxante woon moo doon weer wu nekk daal ay réunion dañ koy xel day def maanaam ñaar sax bu ko jaree waaye nee dëpp depuis juróom benn weer ba ñeen fi tegee ba tey ab réunion defuñu ko wala boog bu fi amee benn ab réunion la booy kayre jàpp ne moom lañ fi def muy loo xam ne daal booy kayre rafetlu wu ko dara dara parce que daa jàpp ne gor ca wax ja maanaam nit ki la ngay wax da nga koy jëfe loolu mooy li nga xam ne ni moom moo war am te daa jàpp ne itam nag maanaam bu ñu leen fi tegee ngir ñu war di waxtaan nit ñi di réunion ne loolu moom la ñu war di def parce que nag lu waxante woon la ba tënku ko ba teg ko booy kayre moo xëy tey daal ngar daajo sunu lamb waxtaan fa seq ak waxtaan wa ka nga xam ne ni moom moo di Iba Kane Xaadim ak Jokkel benn jàkkaarloo boo xam ne daal loo ci mën a dégg ndaa mel ni daal balaa la huit août moom seen jàkkaarloo ba taxut daal mu tàng jëri jëri jëri yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu moom sunu làmb leneen loo xam ne nii yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci muy ka nga xam ne nii moom moo di Mor Mbay ngewel gi moom itam taxawal na combat de dox ci diggante Pape Diouf école de Serigne Ndiaye Pape Diouf numéro 2 ak ka nga xam ne nii moom moo di njambaan ma nekk ca école de lit Mor Fadam yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu buñ fa jógee fa nuy jubali moom moo di ci record record moom la munu xëy andil wala ka mu xëy dalal moom moo di ki nga xam ne ni moom moo di docteur Souleymane Astou Diagne moom nag ab économiste la mu nga xëy tey di wax ci làmb ak na ma ko gisee jàpp na ne daal lamb nekk na mbir moo xam ne ni daal bés ko defaree def ko ni nga ko war a def jaarale ko ci yoon yoon yi nga xam ne ni fa lañ ko war a jaarale moom mën naa nekk développement boo xam ne daal développement bu la buy daj réew mi wala développement national moom daal loolu la xëy gis ñu laaj ko ndax Gaston Mbengue ak combat yii mu taxawal ñuy naan maanaam état ne ci ginnaawam ak yu mel ni ki noonu moom daal la mu xam xamle ne na déet dama cay maandu Gaston Mbengue na muy def ba taxawal ay combat ne na man man docteur Souleymane xaw ma ko kon kay moom ma taxawali combat moom moo xam fa mu jaar ak yan yoon la dugg ba xëy tey taxawal ay combat waaye nena nag ka ne ca ginnaawam nee na loola moom du aw yoonam newu ca xamu ko te nit itam doo wax loo xamul mel ni ki daal tey waxtaan wu yaatoo yaatu xëy na tay seq ko ak journal bi nga xam ne moom moo di record moom mi nga xam ne ni moom moo di docteur Souleymane Astou Diagne yemu ca ñëw na ci tamit ci wàcc gi nga xam ne dañ koo jàpp ne lamb da koo wàcc maanaam ba tey seen bàyyi yi ki ni bàyyi mel ni ki lamb dafa xaw a lu mel ni ki daal leader yu meloon noonu mu ne waa loolu moom mënees na koo seetlu ndax nag ñaar ñooñu ku ne xam ne ni nu meloon ci personnalité ak itam seen taxawaay ci mel ni kon daal docteur Souleymane Assou Diagne tey xëy na tey ñu dalal ko ci record mu wax fa lu yaatoo yaatoo yaatu waaye ka nga xam ne ni moom moo di bàyyi ma ñoon junior tamit démb fa nga xam ne moo Fourrière le 19 juin bii nu jëm di samedi jiriñoo bu dellusee ci arène nationale ak Voxu Arena démb daal mu nga doon def la nga xam ne ni moom moo di open pressam fa nga xam ne moo doon ca caaroy mel ni ki nag moom soo bëggee dégg dëgg daal yëngu na yëngal na te itam nag diggu na Fourrière ne na ko daal bu bëree dama koy daan bu xeexee dama koy dóor mu daan maanaam daal moom naru koo may dara loolu la wax Fourrière bu Grand Yoff kon nag ku yebu daal xaar tay tontu li ndax ki nga xam ne ni moom moo de fourrière moom dana ko tontu ba mu saf saf fa nga xam ne moo ne ca Grand Yoff ci open press am waaye la nga xam ne nii te lay dellu si mooy ca record ak ka nga xam ne moom moo di docteur Souleymane Assou Diagne moom daal xulle maandu na ndax nag nit ki loo xamul da nga cay maandu kay tëggi làmbam moom moo xam ne muy def bay tëgg ay làmbam fu muy jaar bay wutab xaalisam ak i partenaire am kon daal nit ki maandu dafa naa ne xulle bokk na si ak jaamu yàlla te docteur daal tey wane na lu mel ni ki noonu jërëgeen jëf kon loolu mu ñëwoon tey ci yëglikaay yi muy sunu làmb muy record muy Equivox TV mel ni kon daal kon loolu leer na ginnaaw bu ñu leen nuyuwaatee ah di leen xëy di xamal ne que daal sunu làmb comme ni ngeen ko dégg ci xëtam mu njëkk Tafatine Sathies ba si Bombardier ñoom ñett ñi daal yëglikaay bi ne na gagner ou périr ah maanaam daal kon soo bëggee dégg dëgg moom ndama leen jik ci seen ay combat ndax ku ne xam ne ne Sa Thiès diggante bi Moussa Ndoye ci la jëm muy combat boo xam ne combat bu dangereux la pour Sa Thiès parce que li tax mu dangereux mooy ah tey bu ñu doon xool favori bi mën nañ ko am na ñoo xam ne mën nañ ne Sa mooy favori bi waaye nag nañ ci teey parce que Moussa Ndoye am na ci lu mu jógee te waxoon naa ko fi démb dafa jóge ci defet bu metti digganteem ak Garga Mbossé te yooyu itam yàgg bëgg bëri ak Sa yàlla di dox tey ba Gaston Mbengue jox ko avance su ñoom ñaar ñu war a bëri le Mm, six juin kon defe naa ne ah combat la boo xam ne day xaw ma ñoom ñaar kuy daan waaye combat la bu dangereux ci ñoom ñaar parce que bu dee Sa Thiès la bu ñàkkee combat bi dana gën a métti ci moom ndax fi mu jógee moo tax defet bi mu jógee diggante ak Boy Niang toog quelque temps bëreewul bu dee Moussa Ndoye la bu ko ñàkkee tamit dina gën a métti ci moom ndax dina toog maanaam dafa jóge woon ci defet te itam daaw bëreewul kon muy nekk combat boo xam ne ci ñoom ñaar ñëpp ku ci ne fi mu nekk nii fi nga ci taxawee pour man baaxul la leen ciy arrangé daal mooy def ci fulla ak fayda ak jom te itam ñu nga ca ndam nag kenn ko ci mën a am loolu moom mooy li leer match si daal la ñu mën a séddoo waaye bu dee ndam moom kenn ko mën a am ah yal na yàlla def nag ñu yegg ca combat ba ak jàmm ki ci war a am ndam am ci ndam la ñuy la ñuy ñaan daal bi moom yal na ci jël bu leer nañ am xamuñu nag ci kan lay amee. waaye yal na ci jël bu leer am gis naa leen nag ci entraînement yi gis naa seen ay poids gis naa seen ku ci nekk ni nga tax waaye xam naa daal ñoom ñaari ñëpp ñu ngi préparé la nga xam ne moom moo di boobu komba bu dee tafaati na diggante mag booy Niang tamit comme lu ñuy wax rek maanaam boo xoolee euh, si ni ñu jàngate combat bi man la boog man ni ma ko jàngatee dama naan tafaatin même bu fekkente ne moom mooy favori komba bi tamit Boy Niang moom mooy gën a nekk en l'aise si combat parce que lu tax mooy euh, Boy moom moo féete da nga leen di boo defoon tey sondage ci biti dañ naan la tafaatina sut booy ñang muy loo am ñeen ñi ne la tafaatina ëpp doole loolu nag beneen affaire la doole moom ak masse c'est pas la même chose du benn kon yooyu yëpp bu tënkoo tafaatina ëpp doole moo sut moo lii loolu nag bu ñëwee tegu ci sa kaw te ki ngay bëreel di xale bu liggéey ba fekk si la kon defe naa ne ah pression bi yaakaar naa ne moom mën na am du bëri ci moom te itam booy ñang am na lu mu bëgg a wane defe naa ku jël avance su Balla Gaye ku jël avance su Tapha Tine ñu ne déet waaye nga teg ca bu Balla gay 2 defe naa kon bëre ak Tapha warta nekk sa problème kon Tapha Tine tamit ci combat bu dangereux la jëmaa ah, combat boo xam ne moom leneen lu mu ci am lu dut rek dina metti ci moom loolu moom lu leer la leneen lu mu ci jëlee lu dut def victoire luy lay doon si moom waaye nag sport la il fallait que une am ci wala match nul wala défaite loolu moo si mën a nekk Bombardier ba tey moom tamit diggante ak ki nga xam ne nii moom moo di Balla Gaye waaw moom tamit fi mu taxawee man nañ ne baax na baaxul parce que Bombardier sax moo xawat na ndax Bombardier fi mu nekk nii fi mu toll si làmb tey bëreetul lu ñu koy reproché ci ay yenn yi parce que li tax mooy ci fin carrière am la nekk ah mu neex na naqari ci lan toll donte que nag nekk na mbër boo xam ne début carrière am fii ñu koy waxee mosul ñëw si làmb nga ne Bombardier mi entraîné wul muy foye làmb loolu moom masta am parce bu ko doon foye du dégg roi des arènes fois daan ñaari xale yi gën a tësi làmb muy ëma muy muy muy euh, ki nga xam ne ni moom moo di Modou ak Balla Gaye 2 te dafa leen a daan moom Bombardier tey nag mu jóge ci euh, defet boo xam ne bu mettoon la ci moom diggante ma Eumeu Sène ci Léopold ci Léopold Sédar Senghor ci la Eumeu Sène jëlewoon couronne roi des arènes boobu ba tey amul adversaire ba yàlla dogal Gaston Mbengue jox ko Balla Gaye ñu war a bëri le 31 juillet muy boo xam ne tamit li ko ci war moom Bombardier bu fekkente ne li ma dégg mu wax comme déclaration moo ne ci moom dafa bëgg a jàll continuer lijjanti leen ñoom ño wala sax jaaraat ci seen ko balaa bàyyi ah li ko koy may bunt bi nag mooy Balla gay 2 il fa que mu daan ko de pour mu mën a dérégler loolu waaye leneen lu mu am ci Balla lu daan Balla moom ah pour mu lijjanti la ca des dana xaw a jafe waaye daal combat boo xam ne itam bu nar a méttee métti lay doon daan Balla nag xam naa ne du doon lu yomb ci biir komba waaye itam kon bés la rek bu ñu continuer ba tey ci sunu làmb ak Tafa Gueye xëy na tey di jàngat Sa ak Moussa Ndoye nee na Sa Thiès Sa Thiès grandi Moussa m'a surpris waaw parce que Sa Thiès ma des na xaar ci moom màgg parce que it nag am na fu mu jot a jaar ba yegg si fii tey am na ci lu mu jóge loolu itam war na ko mën a jox ay leçon ba nga xam ne dina màgg ci xel màgg ci taxawaay màgg ci nu muy aborder ay kombaam parce que tamit am na ay kombaam yoo xam ne aborder na ko façon bëre boo xam ne nii du bëre bi nga xam ne nii wax dëgg yàlla bëre mbër mu màgg la boo xoolee moog booy ñang demal si digganteem ak Malick ñang même am na combat yu mu daan sax nam ko aborder baaxul moog Zarko bu la neexee nga dellu ci tamit euh, mbër man nga nekk songo kat waaye balaa ngay songi nag il fallait que nga def benn round d'observation pour man tuuti bu dee ba 10 secondes la nga def sa round d'observation xool adversaire bi ndax fi ma koy songi fi la ne wala newu fi waaye adversaire ba nekk fële ca xulle ma jóge fii tëb ne dama koy songi kooku mën na la dóor nga daanu parce que defe naa ne moom Malick Niang ku ne gis na ne kere kaw moom la jëlee si combat bi ndax dafa jóge fu sori te Malick Niang di njool Malick Niang teel ko gis distance am seen diggante mu contrôler ko dóor ko croisé droit mu mu mu mu mu mu réer mu yeggali ko daam mook Boy Niang tamit même chose noonu la bëree waate ah, parce que Boy Niang ngi fële seen diggante distance bu sori mu ñëw di xeex moom xeexu mbedd di laaw Boy Niang di ko liir di ko dóor ay croisé ba néewal ko doole ba bi bi ñuy daje ji songo ji boobu mën nañ ne Boy Niang moo fa nekk bu dee Sa Thiès amoon na 100 pour cent physique cinquante pour cent yi moo des Boy Niang moo desewoon cent pour cent parce que moo ëppoon sang froid moo gënoon ne ci combat bi moo tax mu bëreeg moom bëre bu rëy ba mu bëreeg ko te loolu dafa bokk lu nga xam ne mbër da liir combat yaa ngi dégg bu fekkee nag màgg na comme ni ko Tafa Gueye waxee kon liir yaakaar na adversaire bi mu jëm adversaire bi tamit mën nañ ko bàyyi xel ci li tax Tafa Gueye ne surprise la gis man daf ma maanaam ma surpris parce que Moussa Ndoye bi ma gis wax dëgg yàlla ci côté liggéey macha allah entraîné na liggéey na de parce que man gis naa ko te itam vraiment liggéey na trop trop bu ma leen xoolee sax ci wàllu poids dama naan Sa Thiès moo jël poids mooy moo yore pois mais Moussa moom yorul poids maanaam bu yorul poids ça veut que euh, ci côté masse Sa Thiès nañ ko gis doon gisee bi bi bii combat daf ci yokk poids xaw ma lu mu si jublu lu mu ci jublu waaye Moussa Ndoye daal forme ba gisee mu yore tamit forme bu doy doy waar la kon nag combat la bu nar a neex caat nee na nañ ko jox baabooy nee na ko Gaston jox su baabooy caat bu booy bambara waaw. baaboo de comme day dikkaat si làmb ji te am droit dikkaat ah waaw bu la neexee jox la avance mu bëree bu ko Gaston Mbengue nango wala mu wala baabooy parce que tamit loolu mën na nekk ba tey waaye du tere tamit caat am na sa yéen yow defe naa ne yaa ngi ci combat wala xam ne nga bëgg a jëlaat benn avance parce que su ma jumul yaa ngi avance su Modou Dia waaye comme jëlay avance daa xew loolu mën na ne waaw te combat ak Modou Dia defe naa ne Prince Production moo ko teg Prince Sissoko suñu waajooju maa ngi koy nuyu di ko ziar Prince borom Parcelles Assainies ba tey bu ma continuer ca Gambia ku ne xam ne ne weekend bi weekend bu nar a metti lay doon si làmb Sénégal ba Gambie xoyantaan moom moo xëy di décortiquer combat wu Leket Baara ak France bu Banjul parce que jàpp na ne bu dee ci côté xeex ki nga xam ne moom mooy France xeex bi moom la gën a arrangé bu dee lutte pure Leket la gën a arrangé ah man day wax dëgg yàlla su ma waxee dëgg xule parce que da ngay wax loo xam gisaguma leen ñoom ñaar ñu bëre waaye ni ma leen gisee kere physiquement maa yow fa nekkoon ca euh, ki nga xam ne moom mooy Leket xam naa ne séréer la te xam naa ne li pire moom da koo def ci équipe nationale bu Gambie fu nekk bëri lu simple kon xam naa ne loolu xoyantaan wax lu jar bàyyi xel la côté bëri bi bagaar tamit bu ma gisee ki nga xam ne moom mooy euh, France tamit damay gis ne que moom tamit daa ni bagaar lu mu war a lu mu daa mel ni lu mu lu ne ci moom la kon defe naa xoyantaan warut a jum xam na leen te naa ne laale na ak ñoom ñaar wala mu kenn ki maa ngi dégg kon bés la boo xam ne dimanche lay am ca Gambia ak Jamaïcain Jam Production mu koy nuyu di ko jaar bu baax a baax Jamaïque di nuyu waa Gambie yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ñoom Luc Nicolaï bu Gambeek ñoom Djibal Touré ñoom Père Dongo Cissé xam nga képp kuy Gambia rek mais di nuyu tamit sëñ Idrissa Ndiaye nga xam ne moom Sénégal Gambia fi mu nekk nii ambassadeur la ci parce que ku nekk na gis na lu rafet li mu taxawaay bi mu amee si diggante ñaari réew yi waaw maa ngi koy nuyu bu baax a baax Idrissa te surtout lëg daaw ba tey ci weekend boobu si dimanche ja Ndakaaru yi tamit baagante bu la neexee yaay choisir ah. arène nationale Assane Ndiaye fay nekk ak ki nga xam ne ni moom moo di euh, Boy Pouy école Cheikh Mbaba ak Taqe école euh, bu Lamsar loolu mooy grand combat ba la tax nag loola euh, beneen combat ba nga xam ne moo nekkoon ca kaw a kaw amatul mooy fils de Balla ñoo ci waroon bëri ak général Malika yàlla dogal fils de Balla amee blessure ba ñu dàq ba combat booba amatul te mais Assane Ndiaye comme ni muy wax rek wala comme ni ñu ko xamee moom à tout temps rek. ay combat am day teglante au moins trois combats yoo xam ne bu ci benn bi yàqu rek yaa ca des na mën nañ ko continuer loolu tamit am na solo ci promoteur kon moo tax journée boobu dimanche tamit dina neex arène nationale waaye ca ba tey ca Iba Mar Diop ci même dimanche jooju Jibi Ndiaye Gibson production hmm, doomu ndeyu Baye Ndiaye wala magi Baye Ndiaye moom itam ku ne xam na ne day tëgg làmb fa nga xam ne moom moo di ca Iba Mar Diop ba du combat bi war a dox ci diggante Guine bu Yoff mi ngeen xam giin bu Yoff ak ki nga xam ne ni moom moo di xale bi dëkk Kër Massar ñu naan de bulldozer muy combat boo xam ne tamit bu nar a neex lay doon combat la boo xam ne bés la boo xam ne itam bés bu nara neex la ñu ci delloo suñu rakk suñu frère Pape Modou ñu tudde ko ci drapeau di ci delloo Baye Ndiaye njukkal kon loolu tamit bés la boo xam ne ñu ngi ñaan yàlla mu yegg seeg jàmm Gibson nga dugg ci ñu rahmaan génn ci alhamdulilah rabbil alamin loolu la ñuy ñaanal Assane Ndiaye ko ñaanal Jamaïque parce que yéen ñëpp ay frère ngeen Assane ak Jibi suma ay grand lañu Jamaïque suma rakk la kon defe naa ne itam ah du ñu mën a def leen lu dul rek ñaanal leen yàlla ñu génn bés yooyu nga xam ne moom la dugg Boy Kayre moom dafa xëy tey mer ka mu nag moom mooy Sitor Ndour ak CNC bi parce que jàpp na ne Sitor na mu arbitré de ñaari réunion ci weer wu ne waaye depuis six mois bañ leen tege ba tey benn réunion fi am te Kayre jàpp ne loolu du yoon ah man nag ci côté arbitrage ba moom la ma gis daal xam naa ne ak lu mën a xew combat ba moom buy jeexee ki nga xam ne ni moom mooy Jacob day am dam parce que euh, avertissement yi xaw ma nag ne ko seeteer joxe noonu la xaw ma waaye xam naa daal buñ ko ca ca la ma sama bët may moom kala ki nga xam ne ni moom mooy Mbagnick mooy ëppale parce que tamit boo xoolee adversaire am yóbbu na ko ci biti ña ay yoon te tam defe naa ne wax dëgg yàlla dama naan ah buñ bu fekkente ne ñu waxante te te yàlla tax yoonu arbitre ba nekku ca côté booba ci bi ko Jacob di gëdd ba muy génn biti ay yoon xulle yaa ngi foon yaa doon filma defe naa kon loolu tamit nekk na li mu wax nag ci réunion seen CNG waroon di def te teniruñ ko ah benn rek la ñu defar booba ba tey defe naa loolu itam doxalul ay mbir bu fekkente ne man daal li may wax fu mu mën a doon muy seen see ba fii ma nekk ak feneen fu mu mën a ne di daje di waxtaan dafay gën a tax ñuy xam fi nu jëm day gën a tax xel yi di màcc xam-xam yi di génn parce que moo ñuy may ñu am yoon wu ñu war a mën a jaar ba dem fi ñu war a jëm kon nag CNG bii fi nekk nañu fexe ba lañ leen waxoon rek la fi ñële defoon. ci li nga xam ne mooy lu baax yàlla nañ fi def lu ko ëpp ñun loolu lañ leen di souhaiter lañ fi amoon ci ay parce que nit ay def erreur nañu fexe ba bañ fa jaar ñoom tamit loolu lañ leen di wax waaye daal xam naa ne euh, defe naa Bira Sène dina bàyyi ci loolu xel mook ñoom may Maysa Ndiaye ak ña nga xam ne ñoom ñooy père Manga ña nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu yore la nga xam ne moom mooy làmb ji léegi docteur Souleymane Diagne moom xëy na tey jàpp na ne làmb nekk na benn euh, làmb la lutte en puissance waaw jàpp na nekk na puissance boo xam ne daal pour développement sport au niveau national wax na dëgg waaw parce que bu fekkente ne ni mu ko waxee defee nañ ko noonu ñu teg ko fi ñu ko war a teg jaarale ko fi ñu ko war a jaar war na mën a développer lu baree bari ci sport national bi waaw war na mën di tamit defal parce que bu ñu ne ci sport ça veut dire que bu keroogee danañ ko yóbbu ci beneen niveau maanaam it jariñoo ko neneen lool ki ko wax ab boroomam xam-xam la di docteur Souleymane Assou di euh, moom vraiment tey waxtaan wu yaatu seet na ko ak waa record ba tey bu ñu ñëwee ci loolu wala bu ñuy fi ñuy jeexale mooy Equivox bàyyi ma joon senior gis ngeen ko fa démb ak ah, li nga xam ne mooy open press am mu koy waajal wala boog def na ko ba pare démb tëkku na adversaire am de Fourier ñu war a bëri le 19 Fourier itam dina def tey Garga 2 tamit yaakaar ne mardi lay def ndax ku ne gis na ko mu ngi lancé appel te foofa itam xam naa dina neex trop mardi ca Parcelles Assainies kon daal loolu mooy li nga xam ne moom war a am ak euh, Vox Arena loolu le 19 lay am ci arène national di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaan ñëpp jàmm waaye di nuyu tamit suñu partenaire bu ñaawul bi rek comme ni mu koy waxee rek Zador xulle Zador a ngi nii diw gaa ngi nii macaroni baa ngi nii vermicelle baa ngi nii am na moutarde am na spaghetti am na couscous am na thé lépp Zador am na ko waaw noonu la fa demee di baalu ñëpp ak di ñaan ñëpp jàmm di wax que ni Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit di nuyu promoteur bu mel ni Baba Diaw borom Thiam production moom tamit maa ngi koy nuyu di suma waay waaye du ma fàtte Omar Tawa ca Marsa Salem xulle maa ngi koy bégee bu baax Omar kooku suma xarit la suma nit la ku may jàppale la yàlla xam na ko daf may jàppale te boole si ay wax Omar Tawa yàlla na sa jàmm yàgg di nuyu Maas. mu xarañ loo ca kolobaan di jaaykatu fëgg jaay mi nuy jaaykatu fëgg jaay yi nekk kolobaan yëpp ñoom maam Cerno Wadd ñoom usmaan gars yi nekk kolobaan di yëngutu ci fëgg jaay bi yëpp laay bu faas su ma rakk suma ma xarit maa ngi koy nuyu ak jaaykatu téléphone yi nekk kolobaan yëpp maa ngi leen di nuyu su ma rakk àll joom ñoom Ibrahima Sarr ah ñi nekk ci maquette bi yëpp ma ci happy borom dàll yu naay si moom tamit mu ngi kolobaan tey daal képp ku nekk Colobane maa ngi lay béggee di la ziar di la ñaanal jàmm ak fépp fu waay nekk di yëngutu parce que tamit Sénégal loolu moo koy doxal xam nga di nga dugg ci benn marché xule fekk benn waaye yore benn taabalam bu ndaw nga di ko ko xeebal yow te fekk na taabal jooju kër la yor di ci dundal ay famille di ci joxe dépense yor ci soxna wala sax mu yor ci ay soxna yor ci famille di dundal kon li la loolu moo lay won ne liggéey rek la yàlla barkeel yàlla nañu yàlla xir ci liggéey te itam muy nekk liggéey bi nga xam ne dina dëppoog suñu diine maanaam liggéey bi nga xam ne moom mooy bu lew bi te sell barke bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na jàmm yàgg Sénégal xulle